ci chronique bi ñu leen di jagleel say bés gu nekk bi la yoon wax ci mbirum coronavirus di Covid ci tolluwaay gi ci Afrique ndax Covid 19 gi am ci Afrique di coronavirus gi laaj wala déet maanaam bu oyof bi wala déet lim bi nga xam ne pandémie bi am na ko jamono ji mën naa tiital ñi nga xam ne ñoo nekkee ci Afrique waaye nag wuuteeg lool bi ñu nemmee ko ci Europe sunu xel. dem ci kàddu yi Assane Sylla mi doon wax coronavirus light waaye nag mu def nag virus bi bés bu set mu ngay gën di gagné terrain bi ci Afrique donte doxin wi muy dox ci Europe ak wi muy dox ci Afrique wuute na lool ñu def nag te xool waa Mali ci bu njëkk ginnaaw bu Covid 19 gi tàmbalee boobaak léegi ñu wane seen ku njëkk koo xam ne jot naa amee jàngoroy Covid 19 gi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars mars kese waaye fi toll nii mbir ya gën naa yokk gannaaw ba ñu cas yoo xam ne jot nañ ko confirmer loolee lépp ci benn bés bilan total ba foofee tolloon ci ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay cas yoo xam ne jot nañoo amee jàngoroy covid 19 gi te ñooñee ñaar fukk ak juróom yoo xam ne jot nañoo faatu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne itam nee nañu wér nañu district bu Bamako bi nga xam ne gën na ko laal jàngoroy covid 19 gi nga xam ne fii la gën a fësee fu ci mel ni Kolikoro Mopti Kaay nañ ko di nguurug Sénégal ngir muccal a ndax sax guerre bii ñuy guerre dal na xel ci bu ñu xamee ne sunu réew amul ay moyens eggul ci demab gi tey nag amuñu yenn moyens ngir jàkkaarloo lu ni mel personnel de santé bi ci bisu tey lu ëpp junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ay test yoo xam ne def nañ ko donte limub test yaa ngay gën di yokku juróom yoo xam ne amee nañu jàngoroy Covid 19 ci jàngoroy Covid 19 ji ka déclaré yi toll ci junni ak téeméer ak fukk ak juróom mbir yaa ngay gën di ëpp juróom-ñeenti ñu génn àdduna juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yu xaar seenam paj xalaatoog ñu doon wax naan jamono ji est-ce que jotul ñu yokk limu test bi nga xam ne moom la ñuy amal suñu xalaat moo di est-ce que itam jotul nguurug Sénégal soppi anamu xeexin wi nga xam ne moom la ñu tàmbali couvre-feu état d'urgence yooyu yëpp nangu nañ ko waaye les ci mën a nekkul suñu bopp moo di accident yu wàññeeku day gis nañu ko càcc gu metti goo xam ne wàññeeku na looloy seetlu gi waaye bu dee lim ñi amee gàngoroy covid gi bés bu seet lim baa ngi gën di law di gën di yokk askanu Sénégal itam changer comportement laisser aller def lu la neex bëri fi lool foofee nag la mbir mi nekk yare di ko ñenn ci askan wi yenn ci ay dëkk yoo xam ne jamono ji couvre-feu ba tàmbali nañu ko fa ñu bëri ci ñoom ñoo xam ne tegees na leen a respecté a digle yi ñuy joxe désobéissance civile fagaru moo gën faju yenn ci ay dëkk Afrique jamono ji tolluwaay gi ñuy kanam ci li nga xam ne moo di faatu gu néew goo xam ne am na fa Côte d'Ivoire un fay wér ñu ne yokk na ba toll ci téeméer boo jël ñeent fukk ak ñeent ya waaye nag ngeen def nank rythme bi nga xam ne jël na ko ci weeru avril gi gën na métti lool pour cent ci gaawaay bii de bu mu wàññiwul dëgër bopp geeg naataay gi est-ce fi gaaw a jóge respecter gën faju Afrique annoncé nag yeewute gi ñuy waxtaane Souleymane Bassir jàngalekat bu mag ba soo sénégalais ba muy jàngale ca université Columbia ca États-Unis nee nag moom Afrique ni muy doxee ak boroomi xam-xam yi am nañ ci yaakaar bu ñu gisee ñenn ñi am xalaatu tàmbali defar ay masque misaalu élèves yi nekk ci polytechnique bu Thiès loolee day mënees na ci ànd wuuteeg lool li ñenn ñi jàpp ne Afrique day day xaar lépp ci ñeneen ngir mën cee jëriñu xeex beeg jamono ji mu di yetu xel